mbokk yi kon tey li leen di andil ci wàllu gént dafa am lool dafa mat di leeral ndax ki nga xam ne dafa gént lu mel ni gis borom bi subhaanahu wa taala ci barab wala ci kër diw mum xam wala ci suuf sàngam sumu xam wala ci am réew yooyu yëpp dafa am loo xam ne moom lay taxawe waaye li ñu bëgg a wax rek mooy gént dafa am ay sew-sew yoo xam ne dafay mat di xam bu baax a baax a baax ndax hmm, barab yi yëpp dafay am ak wuute kon ki nga xam ne dafa gént nekk ci am réew la ko gént ga woon du bokk ak keneen ku nekk ci meneen réew gént même gént gi ni jaww yi wuutee réew yi wuutee ko ñu wuutee ko ay ndox ak ay environnement noonu la gént yi di wuutee kon nit ki mën a gént gént gi te nekk Sénégal kee gént ko te nekk Amérique buñ seetee gént ga ñaari gént yooyu ci téere gént dëgg-dëgg dafay am ak wuute waaye koo xam ne dafa gént yàlla suñ boroom dik ko ne ko dinaa la jéggal dinaa la dugal ajana kooku dafa fekk jëmm la woon joo xam ne bàyyi na yàlla xel bu baax a baax a baax ma waral muy gént gént googu koo xam ne nag danga gént gis sun maam Adama alayhi salaam yow mi ko gént bàkkaaru nga bàkkaar bu mag boo ko yëgee loola tax nga gént ko ndax sun maam Adama euh, ba mu nekkee ci àjjana dafa bàkkaaru woon tax ñu génne ko aljana andi ko àdduna kon ci taabir ruya boo gënte gis sunu am aadama bàkkaaru nga bàkkaar bu mag wala nga gént gis kenn ci doomam yi loolu lay taxawe ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax ndax léeg-léeg nekku ne ni nga ko njorte rek noonu lay nekke déedéet mu ne koo xam ne dangaa gént du di julli ci barab nala la ne nga gis ne julli ga yegg na yërmande yàlla ak jegalam bu ëllëgee dina ñew ci yow aywa koo xam dafa gënte gis borom bi subhanahu wa taala yalla sun borom fon ko mom ma lool bu fekke dafa bok ci ñi nga xamne ne ñuy def lu baax lañu manam ñu baax rek na ko wóor ne yàlla nangu na la muy julli ak la mu jàng alxuraan wala mu géntit ñu di ko sa alxuraan ñoo ñëpp bokk nañ ci jëmb yi nga xam ne suñu borom yàlla subhaanahu wa taala euh, namm na ci ñoom aw boole gi koo xam ne da ngaa gént yàlla woola ci sa wutur nga wuyu ko jëmm jooju nag wóor na dina dem makka makkatal mukaram def ay ponkam barakallahu kon yëpp gént daal liñ bëgg a wax mooy nekkul ne linga nga njort yow ci sa bopp te xamuloo gént loola moo am déedéet mu ne koo xam ne dangaa gént ñëwal bufta bi bis penc te moom mi ko gént moom dong mo dégg bruit bi kooku day ak faatoom jege si na waaw nag bu fekkee njortu na ne bi moom dong mu dégg ko am na ñeneen ñu ko dégg ca barab boobee mu nekk ay dee yu yéeme dina fa am barakallahu kon ci gént daal dafa bari yu wuute mbokk mi nga xam ne dafa gént ak seq taxaw ci buntu kër nit ku mën a doon mu gént ak seq taxaw ci buntu kër di sab tegtal boobu boroom kër googa boo muytul weer ak nangam moo ko dese ci ak dundam tabarakallah lii ñu leen di wax yépp nag amu ci leen na loo xam ne dafa tege ci bakkan ak ay defe naa déedéet déedéet tabarakallah kon yéen ñi nga xam ne yéen nag ñuy topp ci wàllu gént yi di ci bàyyi xel lu ñu leen wax rek yàlla moo tax koo xam ne dangaa gént maanaam lenn ci ñi nga xam ne dañoo am lislaam waaye nga gënt gis ci kenn ci ñoom waaye mu yor téere booba ñuy wax injiil jëmm jooja bu ko seetee daal mu ngay murtat maanaam wàllu diineem mu ngay arrière bu baax a baax a baax a baax tabarakallahu kon yëpp daal mbokk yi foofu la ñuy taxaw xam naa ba dellu si waat ak yéen ci seen wàllu gént incha allah